jërë ngeen jëf mbokki internet yi ñu ñuy topp saa su ne dina taxeeru rek nes tuuti ñu tàqan ñe leen tey jii rek lii gën a fës mën na ne rek nit ñu bëree bëri di xaar mbirum Ousmane Sonko tey jii fan lay mujjee day dellu si liste électorale yi wala du si dellu tey jii danañ si xam lu leer si kanamu siis bi rek ginnaaw parce que attewaate foofee rek sa tribunal bu Ndakaaru nekk si verdict ba moom la ñëpp di xaar lan moo say tukki ko mu doon nag lu am solo lool ñeel mbirum Ousmane Sonko tax kookee di Ousmane Sonko jamono ji rek bokk si élection yi bokk na li ko gën a yitteel mook ay farandoom yi partisan patriote ñoom ñëpp rek bokk Ousmane Sonko lu leen a yitteel tey jii mën na daan si xam lu leeraree rek ginnaaw rek bis bu siis bu waxee rek lan moo tukki ko sa atte boobee nga xam ne doon na su ko atte bërki eh, démb kon nag mën na ne askan wi ñu si bëri bëri loola rek la ni xaar ndax am nouvelle bu neex lay doon si patriote yi wala nam tamit ab mauvaise nouvelle lay doon lu si mën am lu si tukki ko danaan ko xam nes tuuti rek si kanam incha allah ñëpp rek a ko xaar Ousmane Sonko moom xalam gëmoon lenn rek la amul kenn ku koy tee bokk si élection yu ñu dëgmal 2024 loolee nag tey ji danañ si xam lu leer ndax du dina si bokk wala du si bokk mu doon àtte boo xamante ne si ne ah, boobu ba léegi ñu ngay xaar fan lay eh, mujjee wala fan lay wànnante mujjee